assalamualaikum bokk internet bu Guédiawaye info tay ñi ngi fi nga xamantene moy golf keur Balla Gaye numéro 2 ginaaw bimu mu ndam li ci kaw modulo Lo daal di confirmer suprématie ci kaw ki nga xamantene moy modulo ñu ñëw fekk fi li nga xamantene moy ambiance fekk fi également ben enthousiasme bu jéggi dayo ñu ngi taxaw ki nga xamantene moy le grand tambour major Adama Ngom yàgg gunge Balla Gaye numéro 2 ci bis bu nekk kon grand ñu bàyyi la nga nuyo présenté ci bokk internet yi waaw ma ngi sant yalla bu baax baax di la gërëm di la sant ci émission bi ñu def Euh, di la ñaanal yàlla yàlla gën la yokk di gërëm waa Géejawaay di gërëm nag supporteru Balla Gaye 2 yëpp di gërëm képp koo xam ne ni jàpp nga ci combat bi maa ngi leen di nuyu dem contentement bu mag ci ñoom waaw. ah grand bu leelu weesoo rek ñu revenir un peu ci préparation combat bi parce que doonoon na combat boo am teen bu metti la tey ci waajtaay bi en tant que tambour major nan nga ko waajtalee ak sa mbër. waaw comme d'habitude rek xam nga ñun combat dootul rëy ba ndax koo xam ni euh, ci génération moom moo moom moo njëkk a nekk roi des arènes daan ki nga xam ni nii ah, toog na quinze ans daanuwul mu ñëw daan ko kon kooku defe naa combat dootuñu dootuñu dépassé quoi dañ ko prépare rek comme comme d'habitude xam nga def li ñu war a def moom mu entraîné ba ñëpp xam ne entraîné na combat ba jot xam ba mu def fula ak fayda rek waaw. dëgg la comme ni nga ko waxee wóolu nga sa mbër yàgg nga préparé tàkkusaan bu nekk. mais bis bi daanakoon bis boo xamante ni yombul parce que Modou Lo boobu léegi def na 9 ans ñii ni màgg na ñii ni expérience bi yokk na ñu bëgg doon dute naan sa mbër est ce que fa mu nekkoon dellu mun na fa delluwaat niveau ba mu nekkoon yooyu yëpp dafa laxasu woon ci biir moo tax ma ne psychologiquement est ce que loolu daaw leen toog di am jiixi jaaxa ci combat bi waaw non mm, koo gis day ay diggante bon moom loolu nag moo daloon Balla mu moo waraloon mu génn dem defar ji mu defaroo ba ñëw ñii dinañ gëm ñii du ñii duñu gëm mais li am sens mooy ba mu summee ko Modou Lo summee ko waxuma arbitre sifflé mais ba mu summee ko rek la ñëpp xam ne kii liggéey na waaw te loolu bon lañ souhaité woon xam nga yàlla defoon nañ loolu démb ku gis Balla xam nga ne Balla Gaye mi liggéey na waaw dama waxuma sax la mu bëre waaw mais ba mu summee ko rek ngay xam ne kii wax dëgg yàlla fa mu demoon nekku fa di caaxaan waaw noonu daal laa gisee woon waaw. waaw grand bu loolu weesoo ñu xuus rek daal dugg ci li nga xamante ne mooy combat bi démb ñëpp gis nañ ñi nga ñëwee andi ambiance andi benn ambi benn confiance boo xam te aussi bu jéggi dayoo la mais avant mooy ñëw ci ambiance bi damay ñëw ci aspect mystique bi nga dugg see gis nañ benn moment nga def lu mel ni cercle am ku nekk ci biir ngeen koy wër tey loolu yëpp lan moo ko waraloon ci bis waaw loolu euh, làmb la rek xam nga xam nga des fois ñëw ñooy la soo demee ca làmb ja na nga def lii. yaa ngi dégg te nit lamb day toll foo xam ne nii lu la wax rek soo ñëwee defal yaa ngi dégg yàlla après mooy bi biñ ñëwee bon def nañ tour bi c'est normal ñu def ko parce que lamb ji moo ko laajoon ndax lamb ji sama lamb la yaa ngi dégg moo waral ma def loolu rek mais nekkutoon dara waaw. waaw ñu gis également monsieur Yacine muy tambour major bu Modou Lo avant muy tuusal li nga xam te mooy mbërëm daal di ñu soloon ñoom ñëpp dañ ko summi daal di sol ay daalu carax. loolu di ñu woon ne c'est un combat mystique combat boo xamante ne bi tiitaloon na ñu bari yow en tant que tambour major est-ce que dundoo yenn événement yoo xamante ne xaw xaw xaw xaw na la jaaxal ci combat bi. waaw monsieur Yacine sama rakk la maa ngi koy nuyu de passage dem lu mu tëgg neex na maa ngi koy euh, encouragé xam nga di wax Modou Lo mu gën a téye monsieur Yacine ndax démb vraiment tëggal na ko tëgg mu neex bon loolu sax man maa ngi koy soog dégg ay sumi ay daal affaire yooyu bon xañ na ñoom loolu tegtal la bu ñu leen wax rek. ñu def ko te c'est normal ñu def ko xëy na ñoom dañoo xalaatoon ne bu ñu defee loolu am ndam yaa ngi dégg moo waral ñu def ko mais man euh, dépassé naa léegi ah loo xam ne nii ci làmb ah daf may kii daal yaa ngi dégg bon man bi mu ñëwee def naa li ma war a def yàlla bi nga xam ne mooy maye ndam may nañu ndam noonu daal laa ko gisee waaw. waaw suñ sukkandikoo say kàddu dara mënatul a yéem ci làmb comme ni nga ko waxee léegi ñu dugg ci wàllu ambiance gis nañ démb ni nga ñëwee. ñu naan Adama 2-0 la mais ambiance moo ñu gën a jaaxal avant mbër di tuus ambiance bi ni nga ko waajalee ba dugg ci tuus bi yëpp ñu gis un Balla Gaye numéro 2 concentré ñëw ci yow yëngal dellu ci ay naataangoom ñu dugg ci tuus bi léegi nag tegu ci organisation. Mm-hmm. waaw waaw xam nga démb euh, il fallait mu demee noonu xam nga parce que ku ñëwee dañ laa déey yaa ngi dégg te suñ la déey ba pare avant déey bi sax war a gëm sa bopp xam nga soo gisee ambiance boobu ma indi ko soo xoolee démb bi muy tuus tëggal naa ko ñetti kale. yoo xam ne bu ci nekk bokkul ak sa morom xam nga kon euh, ambiance mëntul weesu loolu te jour boobu démb loolu rek moo ma waroon te loolu laa war a def def naa ko waaw li ci topp nag mooy sant yàlla rek xam nga yàlla la fa cat suñu mbër xam nga euh, mosoo ko ci seytaane mais dama bëgg senegaal ñu xam ne Balla Gaye léegi mi cent pour cent waaw te incha allah li ñu ñaan mooy indiwaat roi des arènes Guédiawaye waaw Modou Lo nag maa ngi koy encouragé mbër la ndaanaan la démb yàlla mooy joxe ndam jox na ko Balla Gaye ma koy dénk nag moom Modou na xam ne Balla Gaye doomu ndeyam la yaa ngi dégg lii làmb rek xam nga benn dix minutes la woon jeex na ma koy ñaan ah. moom Modou ak ay fansam hmm, ñu dal xam ne làmb la woon yàlla mooy joxe ndam jox na ko Balla Gaye xam nga ëllëg moom it maa ngi koy ñaanal soo amee combat yàlla may ko ndam moom Modou Lo waaw. waaw bu loolu weesoo ñu ñëw ci bëree bi parce que bu ñu xoolee Balla Gaye numéro 2 dafa dominer Modou Lo ci xeex bi ñu doon wax sax naan Modou Lo peut-être am na ci avantage da ko dominer bëri moom daan ko est-ce que yow yaakaar woon nga combat bi dina gaawee noonu wala mu yombee noonu ci Balla Gaye numéro 2. non man ne combat bi noonu lay demee. parce que Balla Gaye dafa mën a xeex avant muy tukki euh, ñun ñoo ko doon wax naan na bàyyi xeex bi te bëre te moom amul xolu gaañ nit yaa ngi dégg mais démb moom Modou Lo il fallait ñu xeex ñun xamoon naan dañuy xeex te xamoon naa ne bëri bi nii lay ni nii lay nii lay demee Sénégal dañoo foog ne Balla Gaye mënul xeex léegi leer na newoon naa fii avant combat mbër yëpp Balla Gaye moo leen dàq bëri mbër yëpp. Balla Gaye moo leen dàq xeex te démb feeñ na léegi nañ waxaat leen mais bu dee xeex rek joxal Balla Gaye bu dee bëree joxal Balla Gaye loolu yàlla moo ko ko may waaw nañ ko ñaanal rek yàlla mosoo ko cat waaw ndax Balla nga faral ko ak nga bañ ko faral ah xam ne kii mbër la waaw. waaw loolu leer la ndaanaan la kenn door ko naatable kon grand justement ñu bàyyi rek nga tàggoo ak ban message ngay lancé à l'endroit ñi nga xam te ne ñoo ñoo jàpp ci combat ak ñi doon ñuy bëggee Balla Gaye numéro 2. waaw ki ma njëkk a gërëm nag mooy yéen yéen dama leen di ñaanal yàlla gën leen a yokk ndax seen liggéey rafet na te yéen sagu géejawaay ngeen di gërëm nag Aïda Sow Diawara sama maire ndax man jàppale na ma bu baax a baax di gërëm Aliou Sall. meeru Géejawaay joxe na billet yi kaar yi lépp lu war ci combat bi Aliou Sall defar def na ko luñ koy ñaanal mu yàgg fi te wér li ñuy rëcc mooy ah liñ ko yéex xam kon monsieur le maire kontaan nañ ci yow jërëjëf jaaraama. waaw mu nekkoon grand Adama Ngom le temps major de Balla Gaye numéro 2 Bécaye ñu koy sant di ko di ko di ko gërëm bu baax.